asalaamaaleykum suñu mbokk yi ñëw fii tey ngeen di waa AFP alliance des forces de progrès suñu parti bi monsieur le premier ministre am na ñaar fukki at ak ñeent ak juróom benn weer tey mois de juin bii passé la am suñu 24 heures ñu tekki ñetti weer ñeenti weer ah bu neexee yàlla mois de juin bii ñëw la ñuy am 25 ans waa AFP jërë ngeen jëf waa AFP jërë ngeen jëf waa AFP jërë ngeen jëf monsieur le premier ministre lii mooy AFP lii mooy AFP. ñii toog fii tey ñëw bi xajuñ ci salle bii ñi ñëw alliance des forces de progrès parti nag saxaar la am na gaar yu muy taxaw am passager yu wàcc waaye passager bu ñu wàccee am na passager yu yéeg loolu mooy AFP gaar bu mu taxaw mën na am ñu wàcc waaye bu ñu wàccee rek ñii yéeg mooy ëpp bis lii mooy AFP dañu dajee tey pour tabb la comme candidat de l'AFP candidat de Benno Bokk Yaakaar troisième âge sage yi wax nañu xale yi wax nañu cadre yi wax nañu jigéen yi wax nañu lan moo des bu ñëpp ànd à l'unanimité tey AFP ni yaay seen candidat yow yaay suñu candidat tey yow yaay candidat wu président Macky yow yaay candidat wu Benno Bokk Yaakaar dinañ def lu ñu mën dañ ko def incha allah ñaan yàlla suñ borom tàll suñ ñaari loxo di suñ borom may ñu Amadou Ba nga jël ko teg ko ci boppu Sénégal le 25 février ndax mën nga ko yelloo nga ko jàng nga ko xam nga ko lan moo des li des moo di ñu ñaan te ànd nekk benn ñu préparer pré-campagne bi te parrainage bi li ci waa Benno Bokk Yaakaar def ak waa réew mi nga xam ne bokkuñu Benno Bokk Yaakaar ma jóg nañu yaakaar na am na loo ci yëg monsieur le premier ministre yaakaar na am na loo ci yëg te billaay wallaay talay bu neex yàlla suñu borom ñu ngi ñaan yàlla yàlla def la nga nekk président de la république à partir du 25 février 2024